Euh, pour mbir mu tabaski tabaski tey wax naa ci en français tabaski tey comme farata la comme Magal Touba comme Gammu comme yeneen feet mais tabaski tey dafa am solo dafa am maanaa tey Sénégal ñëpp dañ ko soxla sunu xale yi jigéen yi. en Sénégal lambda ñëpp tey ñu ngi waajal tabaski léegi sant naa yàlla nekk acteur tey ku ñu lim euh, ñu ñu war a indi tabaski wala ñu indi carte tabaski am ci man yaakaar man sant naa ci yàlla loolu sant naa ji euh, président de la république son excellence dama ko war sant di euh, di ci teg Aly Saleh Diop sant président dafa yombal lépp tabaski euh, nit kese kese euh, euh, état du ju dugal comme loolu mënul nekk en tout cas de dana jafe parce que def am am na lu nekk ci biir tant que loolu amul tabaski même su amee mille milliards car du du sotti dafa laaj organisation boobu organisation d'abord dafa am maanaam dafa am taxe ay taxe taxe yooyu chaque année chaque mois chaque jour ñu ko fay léegi depuis mois de mai donc aujourd'hui ñaari weer président def ci teggi yooyu tax teg fale kenn du fay dara donc da nga jël ka rek départ jubal Dakar wala jubal Thiès wala jubal feneen en tout cas lu tasul amul léegi donc loolu c'est important beneen bi euh, sécurité sécurité dafa am solo ci ci yi su amoo sécurité mënoo mënoo jaay sa da nga sakk tiit doo doo doo dal su soo dalee nag yëpp mun mun na ñëw facilement tey la sécurité gendarmerie police ñëpp ñu ngi taxaw pour veiller à notre sécurité loolu c'est important deux beneen bi euh, euh, xar xar xar xar dafa am bakkan xar dafa am bakkan soo jógee de Kidira wala jógee Mouter foo la jógee sax Niger am ñu jógee ba Burkina léegi président dafa dogal euh, moom ak euh, ministre am alisale Salé ku baax kooku dañu obligé wala autorisé euh, chaque camion am ñetti berger loolu c'est dafa am solo loolu encore point la beneen bi financement dafa am solo dafa am solo financement donc sant naa ji président bu baak ak Aliou Salé mais seet naa ji yi maa ngi sant euh, banque agricole LBA euh, maa ngi sant euh, son directeur général di ci teg BND maa ngi encore remercier son directeur général di sant DER di sant Fonds Stap j'en financement dafa am solo donc financement bi encore mu ngi à côté beneen bi maa ngi sant éleveur Sénégal yëpp les acteurs parce que c'est 100 milliards qui est en jeu, 100 milliards en Bon, pour l'État, il a 10 milliards. Ça veut dire encore 100 euh, milliards, c'est un peu pour nous pour Donc 10 milliards, 100 euh, milliards, quel que soit Alpha, il euh, y na japonais, nous en tant qu'éleveurs, 100 yi encore, nous jàpp encore ba tout tabac qui nous commencé à faire. Machallah. Nous avons témér à peu près, nous avons Dakar. loolu sant yàlla loolu nag état moo ci jàpp gaa sàmm yi encore ñoo jàpp mais état moo ci jàpp donc le président moo ko waral. mooy mooy mooy bi ji jàpp na ci waaw. national huit cent mil sept cent mille. ji. juróom-ñaar téeméer. juróom-ñaar téeméer junn. Euh, juróom-ñett juróom-benn ñaar téeméer déjà mu ngi mu mu mu mu ci niveau. Euh, national donc on a presque dépassé à peu près à jour mooy cinq presque bennal bi am yaakaar moom du euh, client yi war nañ mën a yaakaar bi ci euh, client yi moom moo leen sottal <laughs> moo leen jàppale moo leen jàppale moom parce que dafa yombal lépp xar su rek bare yomb su su amul rek donc président dafa en sorte que Euh, lu lu war na am problème rek président daf ko teggi teg fale moo tax xaar wu donc clients yi bu ñu sant yàlla sa sant président